jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontaante ak mbégte niñ leen koy defalee saa su ne bu gisee kii ñu toogal nga xam ne kenn du ko présenté ci làmb muy Kandji Production Kandji production xaw ma Kandji bu Boy Niang ndax Kandji moom bu fekkee Kandji production bu gëj a dugg ci làmb ragal naa ñu gis ko fan yi mu gën a saf ci staff Boy Niang rawatina mu fësalaat boppam euh, loolu loolu mbir la boo xamante ni fas yéene nañ cee waxtaan ginnaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéelu waxtaan bi gën a mën a yaatal waxtaan Kandji maa ngi lay nuyu baax di la siyaar waaw jërëjëf jili onze billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sant yàlla bu baax mm-hmm. julli ci sangu sang yi Seydina gërëm suñu ñaari wayjur mm-hmm. di ñaan suñu wayjur bu góor suñu borom yërëm ko xare ko ajana di ñaanal bépp way dawlu suñu borom yërëm leen xare leen ajana mm-hmm. suñu yaay ji fi des yàlla bàyyi ko ba ci kanam a kanam incha allah di ñu ñuy seetaan à travers Wassare Lamb di nuyu sama gars yi ñoom Jibi jib ah, Jibson production kaa Kanji ak Serigne baabu di nuyu képp koo xam ne yaa ngi safoo lamb Mm. di la dalal yow tamit di la nuyu ndax yow suñu waay nga te loolu bu yàgg la. lu yàgg la jamonoy métro ba nëgën. wallaahi wallaahi kañ moo tax suñu diggante yow lu yàgg la. booy ñëw booy ñëw sa buntu kër di la xaar. bilaay fu tëggal sa bëri mais dañuy ñaan rek. interview bi yàlla buñ ci wax leen lu ñu kenn di xeebee. amiin yaa rabbal euh, Kandji dañuy njëkkee ñëw ci làmb waaye dinañ dugg ci làmb benn côté beneen côté dinañ duggaat ci làmb Kandji production daa bàyyi làmb. non xam nga làmb moom mënuma wax dama ko bàyyi Mm. ndax ñun dañ cee bokk yàlla dogal ñu bëggal ko suñu bopp. Mm. Ah, li biñ ciy dugg dañ ko dañ ciy dugg par passion. Mm-hmm. ñun yaakaaruñu woon sax ne di nga tëgg làmb ba nit ne kii mooy kañ. Mm-hmm. biñ ciy dugg dañ ci bëgg parce que dañu bëggoon làmb. Mm-hmm. ku mel ni kër gi ñu dëkkoon ci rival mi. ñu ngi fa mm. dëkkaloon. Mm. gën a yokk virus bi foofu lañu ñu virus bi gën a jàpp. Mm. ñu daan côtoyer suñu benn papa suñu bépp xarit bu ñu wax Serigne Ndiaye. numéro écurie Fass. daan dem ba patam di arranger siège foofu la ñu virus bi duggee donc bi ñuy tëgg làmb. dañ ko def nii rek par amour. Mm-hmm. donc bu ñuy dem di dem ba mu yàgg nag activité bi ñu yor ëpp doole làmb ji ci ñun. Mm-hmm. ñu teggi suñu tànk ci làmb ji nekk ci activité bi. Mm-hmm. mënuñu wax ne bàyyi nañ. posé gun nañ daal en attendant dans la vie il faut jamais dire jamais. mais comme pour l' instant ngi ci liggéey bi bokk ci làmb ji parce que làmb nit mën na ko bañ a tëgg. mais continuer nekk ci làmb. ndax bari na ñoo xam ne bàyyi nañ làmb te tey ñi ngi jëriñ làmb. ñun nag yàlla nañ bokk ci ñi nga xamante ne bi même buñ tëggatuñ tam dinañ jëriñ làmb. Mm-hmm. mais nag mënuñu wax ne bàyyi nañ tëgg mais pour l'instant moom saan bàyyi nañ ba ci kanam. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, fan yi ñu gis la ci staff Boy ñaa lan moo la boole ak Boy Niang. waa xam nga Boy ñaa des fois li nit ñi wax rek sénégalais lu bëri daanaka li na fàng la xam. mais li ci biir du ko xam. Boy Niang du mbër ci man. Mm-hmm. booy ñaar rakk bi ma bokkal ndey ak baay muy xaadim ak baay laat mm-hmm. bët bi ma koy xool laa koy xool mm-hmm. parce que fajaa googu nga daan ñëw booy ñaar dëkk na fa juróom-benn at yoo ne bi ci kër gi lay ngemboo di dem di ñëw di bëri di dem di ñëwaat séq ak ñun lu bari nag mais xam nga des fois day am làmb yoo xam ne jërul feeñ ndax bu fekkee dafa am ñu nekk ci kanam yow mën a goo feeñ mën nga toog ba ci kanam mais buñ demee nag comme ñu ko waxee lu ñor tàbbi day gën luñ gësam day doon loo xam ne dunatul ñàkk en bas en arrière faaw nga nekk ci kanam nit ñi gis la. Hmm. loolu moo tax sorti bu mujj Lac de Guiers ak Tapha bi ñu gis ñu ci kanam. Hmm. mais yàgg nañ nekk ci wetu Boy Niang parce que du ay mbër ak promoteur. Hmm. Ah, ñaari mag ak rakk lañ suñ ko waxee mu def suñ ko teree ñu bàyyi mu jox ñu cër ñu investir ci moom di ko jàppale. moo tax nga saf ci sap ba ñëpp xam ni. non saf gi sax des na. safagoo ni déedéet ñun kay dañuy door a commencé rek mais saf gi des na parce que yaama doy. soo ko waxees gor bu dee yaa ko rey. loxo bu dagg kuuñ na ngor mooy laago. <laughs> wallaahi nit bu ngeen séqee <laughs> dara mu lebal la ngor. Uh-huh. ndax bu fekkee papaam dafa taxaw. Hmm. yaayam taxaw bu ñuy wax ne nañ la woo nga ñëw. Hmm. boo waxee même bu papaam ak yaayam bëggut li nga wax dañ koy def. Hmm. mais kooku boo soobuwut ci moom investir ci moom ci koy soobu. ndax bu dee tur ñun ñoo ko ñu kàm boo ndax maa ko tëgg mu bëreeg mbiis tëgg ko mu bëreeg ekoon ci la xamanteeg tafaakaañ tafaakaañ yi ànd ak moom dugg fu ne génn fu ne ba yàlla dogal def lii muy def man même bu dul dara dara damaa war indi ci booy ñaar Mm. ndax soo geesoo tafaa nekk moom ci géew bi di ko sotti gaalaaj mm. su ma sañoon fu tafaa dëgg ma la am ndam mm-hmm. kon loolu rek war na ma ci mën a indi fekk nag famille Kandji seen xamanteeg boo ñaa ci man la jaar mm-hmm. mais nag pour l'instant laay door a mën a fësal mbir ndax pour l'instant la sama door a taxaw di door jot mm-hmm. Boy Niang jógee ci combat bu rëy diggantam ak Tapha Tine yow combat boobu ànd nga ceeg moom jàppale nga ko ci eh, dimbali nga ko ci comme ni nga ko waxee en tant que frère combat bi bi mu amee après combat bi loolu ban gis-gis nga ci jàmm. waaw d' abord dañuy féliciter Tapha ci victoire bi. Hmm. di ko ñaanal suñu borom jàppale ko. ba mu ba mu doon jiglaayam ndax moom rakk ju baax la. Hmm. mbër mu yarul la ndax comme ni ma ko waxee làmb kenn musul dégg ma Tapha Tine wax. Hmm. am na yar am na teggin respecté na ñëpp te dafa jëflanteeg famille Kandji loo xamante ne. ñun duñ ko fàtte. ndax suñu waajur bu góor bi mu laaxoo. bokk na ci mbër yi nga xam ne déplacé wu nañ Dakar ànd ak papaam ñëw jaale suñu. loolu nag kenn mënu ko fàtte ci àddina. dëgg làmb nag mooy waral kii nekk fii kii nekk fii ndax sport la. Hmm. te sport c' est un esprit sain dans un corps sain mu hmm. jur sport. Hmm. mais dañ koy ñaanal victoire bi ko boo Niang xale la. boo xoolee ñi mu duggandool ci làmb ñëpp tey ñii mën na ne dem mën naa ne la bàyyi na leen fi. bokk cour de dugg si cour des grands. donc su bëree combat bu mel nii mu mel nii nit dafay bëgg. mais suñ borom mooy dogal. te ñun ñi nga xam ne jege nañ ko boo Niang moo jëlal boppam Tapha Tine bëgg am lu mu ci wane. bëgg am lu mu def. Hmm. entraîné combat bi nag daj ci ay coono yu métti ndax bul fàtte ne combat bi ji du deux mois du deux jours deux ans la. deux ans la mu entraîné di daw ay seize kilomètres. Hmm. di daw ay huit kilomètres ànd ak ay entraîneur am ak ay coéquipier am. Hmm. donc su làmb ji jotee mu ñëw joxe fulla joxe fayda joxe jom li tax may wax loolu mooy. arbitre mënoon siffler à deux rounds du combat nga am deux fractures du doigt. ñun ñi ko yóbboon hôpital yàlla doy nañu seede. te suñ bopp doy nañu seede. que na wala dëmmuwut loolu importance bi. li am importance mooy ñun xam nañ ki ñu yore. Mm-hmm. ñun xam nañ ki ñu yóbbu hôpital te ay médecin lañ fa fekk. Mm-hmm. te médecin yi ñu fa fekk keroog lañ leen mas a gis keroog lañ a gis booy ñaa mm-hmm. ñooñu booy ñaa jurul leen wax lu amul. rojo nañ ñëw nañ gis loxo yi damm. mu géré kombaam ak poids bu toll ni tafaatin ba egg si foofu ñun dañ koy félicité. am na yeneen yu nekk ci kawam na gën a góorgóorluwaat gën a àndaat ak ñam àndaloon gën a jàppaat ñam jàppoon l'avenir est devant lui. booy ñaa la def ci combat bi. non man erreur bi ma gis du ci moom ci yàlla la ndax baaraam yu dam mu munu ci dara mais man li ma wér mooy su bëree woon te dara jotu ko. làmb ji tafaatin da koy daan mbaamu daan ko mais du jeexee nii. mais loolu erreur la ci moom parce que baaraam bu damm nga di ko bëree. waa xam nga mbër bëri na ba taay. Hmm. am fracture bu gën a metti bi hmm. Mor Fadam bëri na ak mus ak ak hmm. ba boo ko sottee ndox daanaka fii lay jaar di génn. te teew da koo bëri waale. mbër bëri na fi léegi la rek mais bu njëkk mbër da daan bëri ñu ñaw ba pare nga ñëwaat bëri waat. dëgg la ba pare Mansour Diop bëri na fi ñu door ko nee na moom li mu ci yëg mooy yëg bëñ bi jàll ci pour gi jàll. te teewul da ko def tafaagee bëri nañu dam bëñam mu bëri. Mhm. mais yooyu yëpp ci ngar mi la. ak jom parce que am na ñoo xam ne buñ dóoroon seen loxo sumeeku sax dañuy mhm. dañuy signalé. Mhm. mais moom xëy na gis na ne stade bi ak ni mu mel. ak fi mu ko toll ak jàpp war naa mën a am dam mais jurul muy arrière. mais xëy na ñun ñi nga xam ne ñooy encadrement buñ ko teeloon yëg dañuy arrêté làmb ji. loolu moom lu wér péng la. mais nag comme moom ci ngar mi googu ak jom gi ci la ko bëree mais ñun dañuy fier ci moom. Hmm. dañuy kontaan ci moom ba pare dañ koy ñaax. Hmm. di ko wax ne ko nii la góor day am jom. gone day am fulla gone day am fayda. Hmm. parce que moo tane woon nga nekk foofu di ndax dem nañ hôpital ñëw ñu ne demuwul. kooku bu ko signalé woon ci biir làmb ji lu nit ñi wax. ko gis rajo. gis kuñ palaatere. mu ñàpp loo xam nga gis ay médecin nga ne kii demuwul. boo ko wane woon ci biir làmb ji lu ñuy wax. te ku ne gis na ne Siteu Papa Sow jàll na fi làmb ji eegul ci ay incident yu ndaw boo fekkoon boo ñaar dafa déclaré ñu génn est-ce que coow du fa est-ce que xeex du fa am est-ce que yàq du fa hmm. loolu mën na ko xalaataale ba tax mu bëreeg jom. Hmm. Hmm. Kandji actuellement làmb dañu gis jafe-jafe yi nga xamante ne bari na loolu ci làmb. ñu gis nañ combat bu mel ni si Papa Sow comme ni nga ko waxee. làmb jooju làmb la buñ doon xaar. làmb ji gis nga fi mu mujj. gis nañ booy Niang Tapha Tine. làmb la boo xamante ni ñu ngi ko doon xaar gis nga fi mu mujj. si double moteur. mu nekk làmb yoo xamante ne saa su dañuy jàpp ni làmb yi dina neex mais làmb ji au fond bu ñu demee ci biir a biir làmb ji du neex lan mooy war a loolu. waa xam nga làmb moom bu fekkee comme Quench si hmm. ñaari xale lañ yoo xamante ne bi kenn ku ci nekk ci fi nga toll ci sa avenir da nga war a prouver pour nit ñi gis. Hmm. ndax ñoom ñaar ñëw nañ ci làmb ji kenn ku ci nekk joxe na mais xale yi des fois sóoraale bi dafay bari. Hmm. sëriñ siit da ngay mër. seen calcul bi dafay bari. Mm-hmm. léeg-léeg ñu nekk seen ginnaaw dañ leen di téye bul bëree bul defee nii bul defee nii yooyu yëpp nag suñ koy bëree waale mën na leen permettre à ce nga gis combat yi dem ay match nul mm-hmm. bu dee en Papa Sow Siteu loolu moom waa làmb war a defaat jàngat mm-hmm. parce que man dama ne Papa Sow a tooñ wala Siteu a amul njariñ xam nga moo am njariñ ñu xool lii di am ci làmb muy ay incidents yi mën a impacté kenn ku ci nekk secteur ba nga ne muy journaliste muy promoteur muy muy mbër nañu xool nan la ñuy def ba du amaat ndax am na ci loo xamante ne bii su fekkee dañu juum ci organisation bi ñu réussir waat ñun ñëpp. bu ko defee bu ëllëgee la ñu doon bañ ñu daan parce que ku ne gis na ne surtout Papa moo tax ñu jël ay mesures yu sévère ci diggante Boy Niang ak Tapha Tine. ak Tapha loolu it dafa a nekk jàngat boo xamante ni bi du doon sax mesures yi yam ci. Hmm. mais da xool nan lañ mën di waxtaanee nit ñi de passage ñuy féliciter waa CNG. Hmm. parce que man combat bi man ak ñoom nekkandoo na ak ñoom suuf. Hmm. gis naa ne am nañu ouverture bëgg nañ di dialoguer te bëgg nañ di déggoog nit ñi ci dëgëruñu bopp. Mhm. te loolu rek mooy njiit. Mhm. njiit boo nekkee ay ni da nga leen di déglu. Mhm. di leen laaj seen besoin ngay xoolee la cay yoon nga di ko def te ñu ngi ci yoon kon ñun ñu nekk ci biir làmb nañ leen jàppale buñ gisee lu ñu na xari bul ko kaas par presse ci presse bi. ndax koo wax ci presse ci presse la lay ton ndax am ami mbokk. mais boo demee ca seen i bureau bind wala nga toog ñoom bu ñu defee nii dina gën baax ngeen àndandoo ñu defar làmb rek moo ciy gagné. mais liy wax ji mooy démission parents yi ci éducation xale yi. Mm-hmm. loolu mooy indi impact bi ngay gis yëpp ci mbedd meek ci dëkk beek ci làmb ji. Mm-hmm. ndax nit ki ñu yarut ci biir këram. bu ñëwee ci arène bi mënoo ko yar mënuma ko yar su xamee lu violence ak xeex ak wax lu ñaaw loolu la fay def mm-hmm. mooy waral saisie yi ngay gis ñu koy dajjeeg coow li nga fi gis ak oto jàmbur ñuy dajjeeg te yooyu làmb wu ko parce que yow mun nga ko def dem ñibbi sa kër fekk ki nga àndal yow yaa ngi ko yàq te boo gisee ñuy sanctionné mbëri mais bu bu bay ruuree kay sax may fay su fekkee yow say supporters ñoo ñëw yàq ci yow kese lañ ko mën a jàpp ndax mënuñ jàpp supporters bi mhm. donc mbër itam nañuy jéem a rapproché seen supporters yi di communiquer ak ñoom di waxtaan ak ñoom di leen sensibiliser di leen wan ne lii ñu nekk ñoom ñooy seen gagne-pain mhm. parce que mënoo doon supporteru Jili yor sa liggéey di xëy di ci liggéey bu nga nee nga dagg sa biir yàqal ji li liggéeyam mhm. yow boo ne bëgg nga ko tamit sax nag da ngay nax sa bopp nag kon nañ gën a xoolaat suñ bopp ñun acteurs yi làmb yi kenn ku ci nekk fa nga toog jàpp ne man maa war a defar te ku war a defar du yàq Mm. ñuy way ñuy maytu waxante yu ñaaw yi amul benn njariñ mm. ndax fii koo fi waxal lu ñaaw man na la koo loo mm-hmm. mais nit ku ci nekk rek day am loo jombale sa bopp ak loo munut mm-hmm. léeg-léeg kañ ji wax ji lu ñu ñaaw mais ji li yëreewuñ ko wax lu ñaaw mm-hmm. danaan ceel rek jàpp njàmbaram te nit kenn du ko tuumaal nit kenn du ko wax lu ñaaw te nañ lebalante lu baax surtout ñun ñi nga xam ne ñoo yore mbër yi suñu wanee un bon exemple mbër yi dañu ciy topp parce que yor booy ñaaw muntatee nga wërtatee a wax ak Siteu mais su ma waxee ci Siteu lu ñaaw bu subaa bu ma yoree booy ñaaw est-ce que bu defee dara mën naa wax moom donc ñuy suuraale loolu. Mm-hmm. te xam ne ñun ñoo war a wane un très bon exemple bu ñu ko defee làmb rek moo ci gagné. Mm-hmm. Mm-hmm. am na solo ñu dugg ci keroog ci gis nga Boy ñang diggante ma Tapha Tine bi mu ñàkkee. kii di papaam di perte de gol génn def sortie boo xam ne ñu bari ci làmb rafetlu wuñu ko yow bi nga ko gisee automatiquement lan la la def. non bi ma ko gisee touché na ma li tax mu touché ma mooy papa la ju wax ci doomam. mais état bi mu waxee xolam dafa tàng. te olof dafay wax ne boo meree. bul wax boo kontaanee bul dige. xëy na mer na waxee dënnam. mais moom ci moom xam na ne doo merul noonu. donc booy ñaa xale bu yarul. booy ñaa ku joxe cër la. ku nangoo ndigal la te dégul xam na ne booy ñaa lu mu ko wax da koy def lu mu ko tere da koy bàyyi. mais ñun ñooy ay doomam. booy ñaa mooy doomam ñun la sa raxas sañ a xas. booy ñaa la sañ a xas. liñ ciy def rek mooy jégalu ko di ko wax ne li ko naqare ci doomam boo lëgee ko gisaat. ndax mbaam wéq na doom ji waaye jë bañu ko. Hmm. nañ fàttaliku tamit benn affaire ñi ciy wax ñëpp il faut ñu def ndànk. te xam ne dégul xasut doomi kenn doomam jim jir hmm. ci faratas yàlla ak sunas Mohamed ngénte ko. Hmm. def ko champion ba kañ ji mën a taxaw ñëw jàpp. ba tafaa kañ mën a taxaw ñëw jàpp. ba Gaston Mbengue nga mën koo mën a tëgg koo ko la xas. ah mais xasul moom kese parce que xas na Balla gay 2. non ba non xasul Balla gay def ne. Balla Gaye moo gën a yomba daal. loolu du xas ci loolu non non mais loolu du xas ci Balla. parce que Balla champion la loolu dara ci moom loolu bu bëree Balla Gaye non soo déggee mu wax ko bataille psychologique la rek ñoom ñaar dañoo war a bëri kenn ku ci nekk yaa xam la ngay wax loolu du dara mais ñaata nit nga fi gis ñuy bëri ñaari mbër di bëri kenn ki woo morom mi wala ñu tase nga wax ko dara mais yooyu dara ay bataille psychologique la rek. Hmm. mais Balla Gaye Balla Gaye ni déggul juree Boy Niang noonu la ko juree. dëgg la ndax du balees ak déggul la woon. Hmm. Balla Gaye ak Boy la te ba dañuy dem ba màggat. Hmm. Balla Gaye di indi ay rakam Boy Niang indi ay rakam te boobaa nii la ñuy takk ne di foo rek dafa am loo xam ne nit ñi ñoo koy jël di ko garaawal du garaaw. Hmm. làmb la dañuy bataille psychologique rek Balla Gaye gën a daan loolu daf koy kiiloo rek pour Balla Gaye gën a ñëw sóobu ci làmb ji loolu la rek du dara. mais est que wax ji nga xamante ne jot naa judd ci 100 cent Pikine bi wax ko ba wax ko ci Eumeu Sène est-ce que du jur ay polémique biir Pikine actuellement jur na fa ay polémique mais jur na fi loo xamante ne est-ce que carrière Boy Niang actuellement du nekk. xam nga li tax xam ne wax ji garaawul. Hmm. mooy mu wax la war a waxal. Eumeu Sène Dégol la ko formé jàngal ko bëree Pikine. Mhm. donc su wëlbatikoo xas Eumeu Sène mais kooku da koy ñaax su wëlbatikoo xas ko kooku da ko war a def. Mhm. parce que Dégol sa ñaaxas Eumeu Sène ndax moo ko jur. moog papaam la woon ba nëgë ni ba tey Eumeu Sène man li donc man li ma gis ne mooy garaal wax ji mooy nit ñi ci tawee ka tawiwaat ki wax ñi mu wax ñi mu war a waxal la waxal mais ñi war a wax ak moom it wax nañoo ak moom. Mhm. le linge sale nag la ça c'est lavé en famille. c'est fini. Mm. booy ñaa waxtaan na ak papaam jéggalu ko papaam jéggal na ko. Mm. ñun ñi nga xam ne ñooy staffu booy ñaa waxtaan nañu ak waa kër Eumeu Sène waxtaan nañu ak Eumeu jeex na. Mm. te ku xam na ne Eumeu Sène c'est un très grand sportif yow tamit. sportif du ñu la bi ndong sa rek ngay yuuxoo ko xalangu. te ki wax ak moom war naa wax moom te xam na ko. parce que dégool sañ naa fekk Eumeu Sène ci lu dul yoonu mu rayante jàng moom te bu ko papaam yëgee du ko wax dara. mais garaawal geeg taw yi geeg lu tax mu ne léegi lu tax mu ne laa wax ko doom yi kenn ay doom ko Pape Sarr dañ ko jàppee noonu rek. Pape Sarr bu Pikine jooy na ci ba ni Eumeu Sène sax déggante naa moom téléphone bi mënul yeggale téléphone bi ngir métit bi nga xamante ne. waaw xam nga Pape moom dafa bëgg Pikine. Hmm. te ku ne xam ne ne couleur Pikine rek lay défendre. Hmm. donc bu lu mel noonu amee mu xalaat ne war naa mën a yëngal Pikine dana ca jooy. waaye ñun waxtaan nañ ñun ñëpp c'est c'est un linge sale rek ça c'est lavé en famille. Hmm. jeex na kon dara xewul ci dara xewatu ci loolu it ñu ciy ñaax kenn ku ci nekk soo ñëwee di waxtaan ak nit. Mm-hmm. xam ne ki may waxal am na état bu mu toll. Mm-hmm. ngallaawaay lawaay ko poussé ba muy wax loo xam ne mun na répercuter ci carrière jàmm. Mm-hmm. parce que tey comme ni nga ko waxee nii bu doon déggoo da ko wax keneen ku dul doomam. mu wax ci booñaa bu ko waxoon keneen ku dul doomam. mais yeneen ngay dégg. te bu boobaa ka ko seeti rek ko waral. ndax boo seetee nit gis muy wax nga xam ne kii li muy wax xëy na mer na wala xolam tàng na mais en direct bi mën naa ñaak la koy poussé ba mu koy wax tamit mën naa ñàkk. parce que bu doon sax est ko poussé kañ parce que yow mi actuellement mënuma laa poussé nga wax loo xamante ni bëggoo koo wax. mais est-ce que ñëpp. àdduna bu ñëpp yamoon am ñu gedd seen mhm. am na ñoo xam ne foo leen cuq am na ñoo xam ne boo leen di bippe ñuy décroché. am na mhm. ñooñu mën ngaa bippe cent ans fii amoo crédit woo leen duñ la wax. àdduna mhm. noonu la demee. mais nag du question que ni ñëpp ngay fekk ñu toog rek ngay cuq di cuq di cuq parce que li nga yor nii oor la. mais bu fekkee xam nga ko ba mën koo jariñoo nag dina baax boo ko xamul nag musiba am. ndax ji li wax nga bi ma lay xam yoroo lii. Mm-hmm. te lii tax na foo tourné ñu ne jilee nga ne. Mm-hmm. loolu nag soo ko xamee. Mm-hmm. da koy jël def ko arme boobu da nga ciy defar. mais soo ko moytuwut mën na laa yàqal loo xam ne yàqal kànji loolu foo tourné yow jili ña la doon wax ñëpp dañ lay loolu nag nañ ko maytu ci ñun ñëpp. ndax loo fi wax loo nit ngir mu wax ko ci nit mën na impacté loo xam ne bu subaa yow mi ko def sax du la neex. donc nañ ci bàyyi xel. gën a xool ni ñuy waxtaanee. boo xamee ne kii bu ma ko laajee mu wax ay du ko laaj. parce que yow mun nga defar sa émission defar sa sit ba mu nekk site bu mag te du ay xuloo ko xasanteeg wax lu ñaaw ci nga koy am mm-hmm. mais bu fekkee nag dañu dem ba réew boo fi bëggee bës da ngay wax lu ñaaw. Mm-hmm. boo fi bëggee nit ñi xam ne da ngay tourné di saaga nit ñeeg di wax nangam nangam. Mm-hmm. réew mi ci boppam mooy commencé nekk ci état boo xam ne kenn mënu ko comprendre. wax yàlla mais ñu xoolaat suñu bopp ñun ñëpp rek. te xam ne kenn ku ci nekk yaa man a jariñ sa morom ba ngay ñëw sama kër ku la ne woon lii dana am bis doo gëpp déedéet kon nañu rafetal te mm-hmm. xam ne ëllëg ëllëg yàlla mm-hmm. ndax koo wax lu ñaaw bu subaa boo soxlaa ci moom boo ñëwee ci moom mën naa am mel ni yow rek bañ mm-hmm. te boobaa mën naa metti te làmb ji ñun ñëpp ñoo ko bokk na rafet rek ndax bu néewee jeex bu bëree jeex dëgg la am na solo euh, dima samedi ñu jëm mu ngi am combat bu mag dox ci diggante xoyantaan ak ma Mandione xam naa foofu la ñuy mujjee Euh, dimanche bi Gibson production mu ngi organisé ñaari xale yoo xam ne ay ndaanaan lañ. Mm-hmm. Saba xale bi nga xam ne mooy Mathia Pereira. Mm-hmm. diggante xoyantaan ak Baye Mandione noo gisee làmb jooju. waaw dafa doon combat bu am solo li tax mooy dafay gën a dëgëral lien wu Sénégal Gambie. Mm. ndax ku ne xam na ne Sénégal ak Gambie ay doomi ndey lañu. Mm. donc su ma Mandione jugee Sénégal dem bëre ji Gambie. Mm. xoyantaan war a jugewaat Gambie ñoo bëre si Sénégal. donc ñun lañuy def rek moo dalal ko. te xam ne dëkkam ci la ñëw ñoom ñaar ñu bëre que le meilleur beneen bi ci des mooy signature ba fay am. ñuy ñaax ñëpp. làmb ji Modou ak Ama Balde la. supporters yi war nañoo mën a bokk fenn fu ñuy toog ñu signé buñ paree dem ndax bis ba dara du fa xew. dañuy signé rek buñ paree ñibbi. boo xoolee nag làmb mos naa dégg ci benn interview Tyson ne feeg demuñu. ba man koo def sans pour autant police ñëw. rek ñun réussir guñ suñ pare. loola nag ñun ñi ci si biir war nañ ci góor góorlu di ci waxtaan ak xale yi di sensibiliser mbër yi ñun ñi nga xam ne ñoo yore xale yi ba tey am na ci wax joo xam ne soo ko waxee. Hmm. yaay créé tension. Hmm. donc dalalal ki war a dalal nay dalal. Modou loo mooy may Ama Baldé xaalis bu ca fayee ko cent vingt millions. Hmm. su Ama Baldé bëriwutoon ak moom du ko fayee ko. faree cent vingt millions su Modou Lo bëriwut ak ko fayee ko. nit nag soo xamee ne kii mooy sama trésor dama koy protéger. mais suñ ko gaañee doo bëri te boo bëriwut doo jël sa reliquat. kon nañ protéger pro kenn ku nekk protéger sa morom. supporters yi ñëw ci dal ak jàmm ñoom ñaar bu ñu waree bëri dinañ bëri que le meilleur gagne. Saba. waa xam nga Jibson production dafa bokk ci Kandji production. Hmm. ndax ci famille bi la bokk. Hmm. muy ku baax. Hmm. koo xamante ne ndeysaan nee naa ko bul jaaxle. bul sonn ci sa benn événement. ndax nit ku ci nekk sa xol la la yàlla fay. dëgg la benn part daf maa was ne ma. àdduna bii ñu toll man waaw mu ne basang na ku xëy yàlla la la sab xol nga di ci dox mhm. noo mel noonu la sa xol di mel mhm. moom dafa baax yéen a ñëpp jàmm ba pare nag tarbiyewu yàmb mhm. tarbiyewu làmbu daj ci coono bu nekk ba tey mu mën a tëgal boppam kon dañ koy ñaanal yàlla defal ko ci jàmm ci bis ba ñaari xale lañ nag yoo xamante ne bii ku ci daan yéeg ku ci daanu fekk say morom ñoom ñaar maa la ko wax ku ci daan bàyyi fi say morom yéeg ci kaw ku ci daanu desaat say morom kon combat boobu dina metti dina yàgg ndax Jibson production su organisé ñun ñëpp dañu ñëw toog kon dara du yomb Hmm. incha allah jaajaf maa lay jaajëfal bu baax kontaan naa ci dalal bi. jaajëf jili ñu gën a xam ne rek mbir yi ñun ñëpp ñoo ko bokk. Hmm. que ça soit kii ànd ak Boy Niang kii ànd ak Tapha Tine làmba ciy hmm. ndax ñun li ñuy def su doon toon ak kóol rek ngor mën nañ ko bañ a def. ndax mbër mi moom tàccu yi moom moom succès moom xaalis bi. yow au contraire coono nga ciy dalee ak ak ay xas. donc ñun ñu gën a bàyyiwaat loolu suñu xel te xam ne unanimité comme yàlla amu ko kenn mënu ko am. mbër du fi jug ñëpp faral la. ku wax nag da ngay xam ne kii fi mu toll la waxee Mm-hmm. nga bañ ci am ay noon ñu bañ ci di indi ay détails ak yeneen ak yooyu parce que coow loo fi dégg luy defar rek làmb du ci gañe te làmb fi mu toll nii mm-hmm. mooy ñu àndandoo ñun ñëpp toog dama ne pour pourquoi pas CNG du woo promoteur yi ñu ñëw toog mm-hmm. mu defal leen ay atelier da nga war a tëgg làmb nga ne waaw ñooy la pour être un promoteur il te faut ça ak ça ak ça jibi njaay ak kañ war nañ man di échanger te ñoom ñaar seen ay contrat de sponsoring defar benn contrat libale ko ba mu normal ñu dem sponsoriser leen ñu jox leen dix millions kañ ne man damay tëgg jibi day tëgg jibi jëlal cinq ma jël cinq mhm. jibi dem jël si quarante lutteurs kaa ñi jël quarante lutteurs làmba ci gagné bu ko ñaar defee ñaar def ko ñëpp mënuñoo àndandoo mhm. parce que àdduna dafa am ñooñu mën nañoo def ñii ñoo def mais ñi mën a ànd nañ ànd ñeneen ñi ci des jéem a rafetal ndax léeg-léeg nga dégg ay détails yoo xamante ne da lay wóor na lii place am nekku ci làmb mhm. waaye nag olof daf ne nit ni mu toll rek lay defee mais yàlla nañ yàlla may am xol ak xel moo xamante ni dañ mën di ànd ak nit ci suñ jikko mm. te topp ci seen jikko dëgg la jërëjëf ci daral bi kontaan nañ jili jërëjëf maa ngi koy jaajëfal bu baax Kandji Production mu nekk koo xamante ne vraiment nit ku baax la ndax man ak moom lu yàgg la mm-hmm. ma am mbër muy métro mu nekkoon fi nga xamante ni mooy dóor dóoraat nekk suma xarit di suma lépp am combat ñëw ci man wax ma ko ma dem kër Kandji xaar ko fa ba mu wàcc ma gis ko ne ko Kandji vraiment man de dama am mbër moo xamante ni dama buggoon ku ko tëggal combat mu tëggalal ma ko combat bari na combat yoo xamante ne ci métro moom moom kànj bi moo ko tëgg mhm. loolu nag dafay nekk loo xamante ne du ma ko fàtte bu mukk saa yu ma ko gisee automatiquement yàlla xam na ne sama xel ci loolu rek lay dem mhm. ma koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko gudd fan ak wér ba lépp naal boo xamante ne am na ko suñu borom kàttanal ko dooleel ko ba mu defee ko ni mu ko bëggee mbokk ñu leen di jaajëfal bu baax <laughs> maire bi mënu ma koo baax. maire bi ak ak ak ak ak tanta oh, non ñooñu <laughs> mais man nag man nag maa ngi ci maire bi. ah maire bi nga far man maire bee sama xarit yow mënu ñoo bokk. maa ngi ci maire bi de sama sa sama xarit. ma leen di jaajëfal bu baax mbokk yi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu bu jërë ngeen jëf.